Sénégal dañu leen orienté si débat waaye tàggatuñ leen pour nan lañuy def ba liggéey ba defar seen réew te boo gisee ADS depuis coow li fi am lépp déggoo ñu wax si dafa am système boo xam dafa am ci réew mi foog système boobu changé wuñ ko lii di fi jug lom kilifo faut à la place qu'il gis nga nit da ngay fexe. ba liñ koy dénk mu maîtriser ko waaye koo xam ne mbay la xam nga dénk ko sante jël koo xam ne santé la xam nga dénk ko napp gi yaakaar naa ni ñun duñu amal affaire ak euh, kiñ ko dénk waaye ñun ki ñu fal la ñuy amal affaire ndax ñun faluñu ministre yi ñun président bi lañ fal kon président moo xool ku ko neex mu tànn ko kon ñun li ñuy wax daal mooy lépp loo xam ne dina war a développer senegal nañ ko teg ci table bi leeral ba mu leer nañ ñu bañ a def fat doom làqu doom duma doom déedéet nañ yemale ndax loi kiñ ko dénk moom la daan war a gën a teg ci kawam ke ke ñi jiite lii nga gis mu xew démb Mbàkke ñàkk am métier moo ko waral ndax bu fekkoon ñoom bëgg nañu réew mi yaakaar naa ni lii xew démb du xew olof nag dafa wax ni gasum ñam bu fa yooru boj amee reen nga taxulaa jóg jox leen ma réew mi mu jaral la paaka yi jaas yeeg jug ak yàq jiite askan bi taxulaa jug am na lu si laxasu ñoom ñii nga gis ñuy xëccoo senegal ñëpp amul kenn koo ci mun a yëkkati na muy créer benn emploi amul. kon nit bu fekkee ni da bëgg réew jiital la dangay amal sa askan njariñ dangay ngay fexe ñu am jikko baax da fexe ñu ñu wet seeni magum réew waaye da ngay fexe tamit nitu diine nitu daare ñu jox leen cër bu ñu moom. da ngay tamit jigéen ñi tamit ñu bañ di leen torturer waaye da ngay tamit créer ay emploi ba jeunes yi mën a gis seen bopp dem wàcc naa si terrain bi ay xale yoo xam ne treize ans quatorze ans li dóorantee ko dàqante yëguñu sa lu xew dañ leen a jug leen nag ñu jug xoola tey ay nit ñoo xam ne dañoo créer seen alal ba créer seen societé di jël ay nit di leen fay ñu toj ko taal ko yàqate ko loolu ndax loolu la fi Serigne Touba bàyyi woon ndax loolu la Serigne Hadji Malick Sy bàyyi woon maam Limaamu Laay Baye Ñas ndax APESAC ak fan yi weesu wootewul jàmm ci réew mi kon nañu xam ni ñii ngeen gis ñépp kenn bëggu ci réew mi réew moo xam ne déggoo kenn muy xeex ndax dund gi seer na déggoo kenn muy xeex ndax santé bi metti na déggoo kenn muy xeex ndax ñu ngi bunu xataal suñu imaam njiit yi waaye xeex ngir seen intérêt bopp rek kon nag nañ boole suñuy doole ndax nit waroo xëy di laaj lan la la sa réew defal ndax bu dee xam-xam bi réew mee la ko jox bu dee judd bi réew mee la ko jox bu dee alal bi réew moo la ko jox waaye kon nag lan nga war a ameel sa réew la la nit ki war a laaj ADS nag ne kon nag pare na pour taxawu askanam si diggante boobu gis nañ senegal wàllum santé bokk na ci li gën a sooxe si ndax médecin yi nga xam ne ñooy faj askan bi dañuy am problème lu yaas am problème mu dund faj askanu Sénégal munta nekk ñun nag waa ADS diggante ñetti at lu jiitu ñuy def coalition ADS bi faj nañ fi plus de sept cent soixante quinze mille six cent personnes soixante quinze mille six cent personnes yoo xam ne dugg nañ ci àll bi faj leen ñii dañoo tàngoon ak seen sago ay sénégalais lañ ñu beddi leen ñii dañ doon jëfandikoo lu bon ñii dañ doon jaay seen yaram ñii dañoo feebaroon ñii amuñu moyen bu ñu fajoo ñu boddi leen bi ñuy faj bi ñu xoolee ñëpp dañoo gis ni soixante quinze mille six cent personnes moom jaar na fii ñun ñu faj leen te yaakaar naa ni tey jii boo génneen def micro trottoir di nga gis ni loolu moom ku ne teg na si bët bëtam te loolu rek doy na programme ndax al madrasatu xablal masjid daara mooy jiitu jàkka waaye avant daara nit mm. kon ñun ADS day defar nit defar jikkoy nit ba noppi nag doo a former nit jox ko métier xamal ko nan lay def ba bëgg réewam ak nan lay def ba jariñi réewam neuf mille cinq cent yoo xam ne defal nañ leen ay formation jàppale leen créer leen ay pëti entreprise ba tey coono gu metti buñ doon teg jigéenu àll bi ADS ñëw na taxaw si ba lu ci bëri deñ na ADS forme nañ ay nit si ay métier ci ay góor ba ñoom ñu jiite ay entreprise bay jariñ seen bopp di jariñ seen askan depuis 1960 ba léegi kan ngeen mus dégg si réew mi muy xëccoo réew mi def lu mel nii amul te yaakaarul mu am ba mu kon réew moo dem ci àdduna bi baykat yi ñooy ñëpp ñu ëpp alal waaye suñuy baykatu réew ñoo ñu gin a pauvre yaakaar nañ ni tey nit pour nga nekk ay milliards faaw nga def politicien politique du métier uti leen métier ngir loolu mën a changer mooy askan bi nañ leen jël ñoom ñëpp beddi leen nële fal ADS beneen biit si li nga xam ne moom la ñuy wax askanu Sénégal ñu ngi leen di wax ni congrès bi nga xam ne moom lañ doon jàpp juguñu si te du yàgg dara buñ demee ba gis ne dëkk bi dal na si kàttanu yàlla ñun dinañ ko taxawal te 2024 bootuwuma ci ginnaaw kenn askanu Sénégal laa bootu ci seen ginnaaw